mbokk waa Thiès Thiès yëpp laay wax Thiès jox nañ ma njukkal Thiès dama fi njëkk def un premier séjour nekk fi comme adjoint chef de service def fi de 1993 ba 2000 ma def fi 7 ans jóge fi dellu fi dellu si fi en 2013 jóge fi 2019 defaat fi 6 ans Thiès dëkk boo xam ne vraiment dëkk bu dëkk ñu am coloré lañu dëkk la boo xam ne. du may wax sax Thiès damay wax la ville de Thiès la ville rebelle Thiès dafa am ay bañkat dafa am ay bañkat mais bañkat yépp lu koy indi ci dëgg nañ koy teg liggéey doo ñëwee ci service di ut loo fay liggéey maa ngi koy wax toujours maa ngi bëgg fàtte sax sama mbokk facilitateurs yi maa ngi leen di tuddee ay démarcheurs c'est des facilitateurs noonu naa leen di tuddee parce que c'est un métier c'est pas un c'est un métier nga ñëw nit amul jot pour régler ay problème papier yow am nga jot pour régler ko parce que papier pour nga régler ko ça dure des jours mun nga toog trois jours une semaine doo ko régler mais keneen du mu lay faciliter régler loolu c'est un travail c'est du courtage c'est un mais mais lui luy wax rek may nga teg ko ci yoon nga def ko ci fulla teg ko ci yoon bañ a jël yëfu jàmbur bañ jël alalu jàmbur boo ko defee def si yàlla dina la jàppale sàmba la moo tax vraiment maa ngi leen di am na si ñoo xam ne ci facilitateur lañ nekk ñu jub nañu ñoo xam ne dëgg rek nañuy doxal yàlla na leen yàlla jàppale ma ñëw di ñëw ci auto yi auto école yi man mun ma leen fay samay xarit ñoo ci nekk am na si ñoo xam ne samay doom nañu jàppale nañ ma ci liggéey bi ci fulla ci dëgg teg liggéey bi ci yoon moo tax man mënu ma toog du ma leen fàtte fu ma dem toujours sama xel day nekk si ñoom moom daal ñoom ñoo xam man maa ñoom ñoo xam ne nekk seen xol yàlla na ko yàlla fayal ñi nekk ci biti di jaay ñoom ñëpp xam naa ne li ñu li ñu ma yéene ak li ñu ma defal yëpp gis naa cadeau yi ñu fi indi yéene la loolu yéene bi seen xol yàlla na leen ko yàlla fay vraiment sama xol fees na sama xol diis na aw ma lu a wax mais dinaa wax tuuti dinaa wax tuuti ci liggéey bi parce que aussi duñ ñëwee liggéey moomu fi indi woon liggéey moom moomu yóbbu encore bi may ñëw fii y avait des chantiers yu bëri yu ñu waroon entamé pour def ko bokk na ci renouvellement car urbain yi alaaji Abdou Gueye mu ngi fii jóg fi sànq moom mooy président transporteur yi liggéey la boo xam ne liggéey na ci liggéey bu am solo def nañ fi renouvellement car yi def ko Thiès def ko Diourbel euh, def ko Tivaouane def ko mbuur ba transporteur yëpp ñu ngi ci gis seen bopp liggéey nag loo ci gis quelquefois day am ay gàllankoor gàllankoor yi ci biir système de transport bi la mu am ay problème te problème yooyu xam naa ne ki ma fi uti muy Moustapha xam naa yaakaar ci moom ci problème yooyu dañ ko jéem a juguler dinañ ko jéem a régler liggéey bi fii dañ fiy defar ay carte grise di fi defar ay permis di fi di fi ay visite technique mais liggéey bi yëpp lu ci gën a difficile muy wax mooy problème mu carte grise problème oto. problème oto dafa difficile et puis dafa bëri ay problème loolu moo tax facilitateur yi may wax ñii ñëpp ñu ci bëri ci problème oto yi nañu liggéey parce que oto dafa complexe dafa doy waar doo ci liggéey sax li ñuy wax sax quelque fois damay wax c'est dangereux parce que di nga di nga indil ay kayit yoo xam ne sax doo def lu attention da ne kii mun na mun na ma yóbbu foo xam ne lu ma ko xam moo tax toujours ku nekk service de yàlla musal rek ngay ñaan ci yàlla mu musal la parce que toujours ndog mu na la dal te loo xam ne du sa coobare waaw yàlla na ñu yàlla jàppale jàppale ñun ñëpp ku ci nekk man lay nuyu sa tur sant di gërëm ñu fi teew les acteurs ya nga xam ne ñëpp ñu ngi jëgu ci transport notable dëkk bi ak dignitaires yi l'essentiel a été man nag maay le nouveau service entrant maa ngi leen tàllal sama loxo ubbi bunt yi tëjaluma kenn sama bunt ñëpp nañ ñëw ñu bokk liggéey bi wasalaam. muy man muy moom dañuy nekk ci tànk Alioune donc bu leen ragal dara euh, lu ma leen di ñaan mooy Alioune Gueye lu ñu ko fi seddal yépp premier jour bu mu fi ñëwee kenn seddalu ko loolu donc dafa dem pendant six ans sept ans ngeen koy accompagner di ko di ko di ko gunge ci liggéey bi dama leen ñaan aussi ngeen def la même chose pour Moustapha Tall nit mun na ko jugé ci premier jour su fekkee leen koy xool naan kii kat Alioune Gueye moo ko gën du mos a baax seen kanam da ngeen koy bàyyi mu liggéey ci nu mu bëggee comme lu mu wax jaarale ko ci yoon kenn bëggu fi këyit bu bon ku fi andi këyit bu baax man je prends la garantie ku fi andi këyit bu baax Moustapha taal rejeté ko wala Alioune Gueye ça c'est moi qui vous le dis aujourd'hui ku fi andi kayit bu baax bu jaar yoon ñu rejeté ko wala nga ëllëg liggéey du mos a am. par contre li ngeen bëgg tamit mu la ma bëgg aussi ngeen xam ko mooy à partir d'aujourd'hui comme ni ko militaire di wax il faut reconnaître Moustapha Tall comme chef de service. loolu rek bëggoon wax wa soo gisee ma ne nangu maa wax deux minutes ndab laa damaa fees njaboot gi dafa dal sama kaw. 37 ans de transport routier ma nekk ko sans bureau mooy xay ga ne ca biti nit sama ginnaaw gone yi ne ci lool mu rafet lool nu ànd ko lool kilifa a ñëw ku ne gone yi ànd ak man taxawu te dara ñu ne ci biir kër gi ñi ñu ne ci biir kër gi rafetalal ma njaboot gi ma yor ci biti ànd koog man ma ànd ko ñoom ba suñu jonne tey ñu doyloo ma fu ñu dem ni maa yor seen kar lu ñuy def mën nañ koy waxtaane lu ñuy def mën nañ koy lu ñuy jox mën nañ koy jox lu ñuy wax mën nañ koy wax kilifa yëpp jaar nañ fi kenn bunut kenn bunut waaye ko gis nen nag ni nen a ngi ko gis nen ni nen a ngi mën na maa lim ñëpp ndax 37 ans du benn bis du benn bis jërëjëf nag suñu blaat Mbàkke dane ak yomba ko waaye ku jëful dara kenn du ko wax Aliou ngay jërëjëf man fi mu toll soo duggee ci sama xol sama ndab la fees na dara jëy Seex Rafaal fees naa dell fi ñu toll ci yow géej ndax lu ko waral mooy lan danga am bët yërmande waxuma sax nun ñuy ñëw ca service ba di la joxi kayit ba ma làq fi ñu yi at yi ba mënatuma ko waaye njaboot gi nga xëy ci ni bii dañuy toog foofee ko ci nekk ci sa wërsëg nga xëy ci ni bii sa weer wu deer ñaar fukk mbaa ñeent fukki dërëm ni ko am mu ñibbiwaale ko te ñuy ay waay yàlla nga xëy seen loxo jotu seen ginnaaw bi mu toogee sa bureau ni la Aline Gueye njaboot gi ci biti toog rek te ku génn yaakaar te ñaar fukk mbaa la yàlla dalal jàmm njabootu Aline Gueye gaa ngi nii ñëpp di ko xool waaye yow mii la ñuy xool tey service di min yaatu la ndab la ku sa loxo set nga mën ko ci dugal waaye na rafet na rafet kër fekkee fekkente ni bii dafa fondement dafa rafet tabax ba day mën a dëgër rek wutu àllin ñépp ñu ngi wax ak mbaaxam la sax mbaax nag la soxla fi mu toll yàlla dina ko def yàlla la yàlla defal ca dalal jàmm. di wax ci turu département de Mbour département de Mbour nag bu ñu ñëw di taxaw fii ci chambre de commerce ndax passation service wu Aliou Ngueye sëfoor yi transporteur ya ak sëfoor ya ak emprunté ya ñoo ma waral sama taxawaay bii di wax ni mbuur transporteur ya ak sëfoor yi ak emprunté ya ñëpp ñu ngi gërëm Aline Gueye ndax taxawaay bu leen taxawu fii ci Thiès ndax emprunté ku ko jëlal rendez muy passé ba am permis permis bu walaabal boo xamante ni boo demee international sax dawal ca kon kooka dalaa war a sant gërëm la kon mbuur ak la wër mbuur lépp ñu ngi gërëm Aline Gueye di ko sant di ko ñaanal yàlla di ñaan yàlla fa mu jëm yàlla na ko gënal fii mu jóge yàlla man na ko yàlla na ko yàlla def dama nekk ci auto école yi ak samay kilifa maa ci gën a tuuti te yàlla def ma nekk seen président national du sama njàmbaarte du sama dara mais qualité la bu ñu ma jox lu ñu mën a wax mooy tey waxuma ci noowu auto école waxuma ci dara xëy na peut-être suñu organiser xew ba mu toll nii war nañ ci wax parce que timit ñu nañu tukulóor laa dégg moo la feccub liir bu neexee ndey jaatee ci mbag yi kon donc ne xew bii du ñuy wax ne ñan ñoo xam ne ñoo ñu jàppale bu mu yegg si nii parce que tey bu ñu jaaxlee di wër saal fu ñu ko defee dañoo wër ba sonn amuñu Babacar Ba mu ni nañu dem ci président tribunal président chambre de commerce mooy kii toog bu ñu yegsee ci moom wax wax ji ñun ñoo ngi xaar ñu luy ñu saal bi ci benn prix bu metti ñoo ngi xaar ñu luy ñu sonorisation ñoo ngi xaar ñu luy ñu ay chaise mu ñëw mu ni ñu kan ngeen ko defal Aliou lu mu njëkk wax moo tax alxuraan bi ñu koy ubbee dafa wuyu boromam aligéey dee dañu naan tase ci jumaa ji yàggul sax nañu tase jumaa ji kooku baax la loolu leen a ñoo xam ni war nañ ko utiliser mu ni am na ñoo xam ne war nañ ko utiliser tey mais ñooñu di ko utiliser tey damay wax ñu tëbal ko ngeen jël aligéey seet leen fu la neex ci chambre commerce ba ci biti ma dafa leen ay bâche bâche ci te yemul ci loolu mu ni gars nit bu ko xeebal bësam ñaar la am président jarul ma na yéenam nga xam li may wax kon nag soo teewee ci bësu nit ki waxal ko li nga xam soo ko waxul naa fekk nga xëy na dañoo nekk ci xol bi dañuy wax li ci am mu ni ñëw waxuma sax ci kii bi mu leen jox bërëb bi ñëw leen ma appuyer leen financièrement ñu ne ko jërëjëf financièrement waa service bi réglé nañ ko démarcheurs yi réglé nañ ko auto école yi réglé nañ mais président yaa baax yàlla na yàlla fay Aliou Gueye nekk na nit boo xam ne nee woon naa leen sànq lan laay wax parce que lu ma wax lu ne la Matar Faye wax la Galas wax mais bien vrai que xëy na la répétition est pédagogique man li ma mën a waxee ne ak sa bu kenn dugguwul nee nañu nit di nga jokk mbokk imaam yaakaar naa yaa ngi fi. nit di nga dem ba mu desee la ñetti fan pour nga génne àdduna nga jokk mbokk ñu yokk la fanweeri at si at. nee nañu nit dana la desee fanweeri at nga dund nga dem ba tas mbokk ñu wàccee la ko ba ñetti at nga génne àdduna imaam su ma juumee rek dindi leen ma ko. Alioune Gueye su ma neexee man a jokk na mbokk yëpp mais man su ma neexee man dafa jokk benn mbokk ci man. ku nekk foo bëgg a def taamu ko taam Alioune mën na la laa wax sa taam mais lu ko def da ngeen di ko yóbbu seen kër jigéen ñi yàppaaree Alioune Gueye mu ngi leen li may fàttaliku ci yow moo di chaque lundi de chaque mois suñ ne levée de couleur bokk nga ci ñu fa jiitu loolu di wane sa civisme di wane sa sensu républicain di wane sa takkute ci sa institution loolu weesu suñ ne cotisation waxuma ko def ki ñuy denc cotisation yi moo ko bokk nga ci ñi nga xam ni ñoom ñooy njëkk a appliqué wu ci seen cotisation xëy na yomb na yombul ndax bëri na ci ñi ñi mel ni mel ak ñoomeen yi balaa ngaa jot seen cotisation da ngay daw sonn loolu su weesoo tamit sa dal ak sa kanam li nga ubbi macha allah ñu yombal la maanaam c'est facile ndax loolu la soxla ci fonctionnaire loolu la soxla ci administratif surtout rawatina administratif de ci administration de développement dina wax ne fa nga jëm yàlla na fa la succès li nga am tey di Thiès ba say xol tey dëkkaale ñëpp manifesté la ko yàlla nga am lu ni toll sinon lu ko ëpp ñëpp Dakar dal nga jëm ñi nga xam ne dañoo gis sa takkute ba tax ñu tab tàbb la ci yeneeni fonction yàlla na bu ñu am benn yoon wéetu di ñaan yàlla tamit sa collaborateur bii di ñëw monsieur Tall ñi ma leendal di ko wax d'abord dalal ak jàmm yal na la yàlla jàppale yal na leen yàlla yi may yéen ñëpp wér gu yaram tal ak wér le ba nga xam ne ku ci nekk fa nga nekk yàlla gën laa jàppale ba bés boo fi jógee mu nekk ci jógee bu ni mel ak euh, succès yi nga xam ne monsieur Guèye am na ko yow tam nga am ko bu ko naa nag yëppaale waxu ensemble des chefs de service ndax liñ ma yónni yaatu na lool waaye fu nekk nii temps dafa ñoo dénk et ma yemale ko fi ndaxte li ñu gis déjà lool monsieur tooy na waaye tam na ndax li ñu ma gis si ay kàddu yoo xam ne euh, jafe na ma daal. parce que sama xol dafa tooy témoignage yi ma fi dégg su amul woon dinaa xam ne ñun ñi fi nekk ñun ñii ñëpp duñu jokk ñu fi jëriñ dara Aliou ci ay mbokkam la gën a baax la jëkk a baax la jëkk def lu baax ci ay mbokkam ay xaritam ay doomam ay kóllëre Aliou yar ak teggin rek lañ ko xam Aliou def na région yëpp njub la mos a si liggéey parce que noonu lañ koy yare Aliou bii toog bàyyam moo doon imaamu Medina si diine la ko yar si njub la ko yar looloo la loolu lay fu mu dem loolu la tey rek la Alioune Moussa tuur rangooñu ay xaritam ak ay mbokkam tey tey tey la ko Moussa tuur mais Alioune Moussa def lu ko naqari xaritam mbokkam ak am jàmm mais tey la Moussa tuur rangooñu ay ay mbokkam ak ay xaritam te tuur bi mu tuur rangooñ yooyu mu tuur rangooñu bànneex la parce que dégg dégg ay témoignage yu nga xam ne yu yu doy waar tey rangooñ boobu alin tuur ko mu nekk rangooñu ay bànneex foo mu jëm yàlla na ko fa yàlla sàmm aar ko laax ko fi yàq yëpp alin nga jëm promotion bu rëy xam nga lii nga am fii tey nit junney junney fonctionnaire administration am na ay ministres di def ay passation de service te amuñu lii nga am da war a sant yàlla si ko doon sant waaye nag mënuñu daaneel kàddu te santuñu dañu ne am na am na am na waaye daan wax à côté de grand homme il y a une grande femme. la grande dame mooy kële toog ak Aliou Mbodj Kumba muñal nga Alioune sagal nga Alioune toppatoo nga Alioune parce que lépp fii la ñu fekk ñun ñoo la ñaanal.